macha allah comme ni ma leen ko waxee woon rek si njëlbeen bi suba ba tey ñuy ànd ak ki nga xam ne moo nekk Dame Mbaye xaal si suba ba tey mais dañoo ñëw ñëw boo xam ne ñëw spécial fa la ñu ñëw loolu moo jar laaj ah si bàjjanu Dame Mbaye xaalkat lañ ñëw luñ naan bàjjankat mooy bàyyi dama koy daal dékk sama micro mu daal di nuyoo bàjjan nuyu naa la. maa ngi lay fay bu baax maa fi siyaay tey ñëw nga ñëw bu ma neex ñu ngi lay dalal jàmm. Euh, di la wax ne kontaan naa ci dal bi euh, maman ñu ñëw tey ànd ak li nga xam ne moo nekk sa doom euh, su booba tey ñu koy gunge ci événement bu rëy muy def la la le 8 muy sargal li nga xam ne moo nekk jigéen ñi mu jël la daal lay teg ci li nga xam ne mooy ci kanam nga nekk li nga xam ne mooy bàjjanam tey soo ma doon wax ci Dame Mbaye tey ana lan nga may wax ci moom. daam daal bu lay wax ci moom wax dëgg yàlla bu dee dëgg la yàlla bëgg lu ma doon bàjjanam sax moo tax wante daam moom nit ku baax la. daam nit ku yiw la daam nit ku bëgg waajur la daam nit ku bëgg mbakke la daam nit ku bëgg mbokkam la daam ku bëgg ay xaritam daam ku am kóllëre daam daal li ma la mën a wax daal il est exemplaire parce que bu dee dëgg rek la yàlla bëgg daam moom ay exemple sama kër gi fi la dëkk daanaka te ni mu mel sama kër gi noonu la mel ci kër yëpp daam xale bu ndaw mën na koo yendal fu ne mën nga gis nii daam muy dem nga détourné ko ñëw indi ko sa kër bu fi jógee rek mun na ko dangaa tëdd léeg-léeg sax bu neexee mu fanaan fi xam nga loolu baax dong moo ko waral. macha allah yow tamit nga nekk li nga xam ne mooy bañ comme sànq ni ko dàmbaay xaal waxee waaye dama ne nettali ci gémminu borom la dàkkee nga nekk bàjjana mu wax ci yow lu bëri macha allah bëggoon naa tamit ñëw ak maanaam wax ma ci loo yëngu ak ci loo nekk loolu dina ma neex dina neex waa El Vision Médias. man de ci li ma yëngu man opératrice gi laa damay tukki di ñëw gérer ay structure di politique teg ca di politigal nag jàmbaar ji lu baax mi réew mi bëgg mi bëgg réew mi jëm ca kanam mi bëgg Sénégal mi fonk Sénégal mi téye Sénégal àddunaam yépp senegal Sénégal mel ni yeneen réew mi rek ci la nekk bu dégg bëccëg lu mu dox rek loolu lay dox lu muy wax loolu lay wax lu muy jëfe loolu lay jëfe mok soxnaam su baax ci Mariam Faye nga xam man limay wax toujours rek nee naa maa ko mag mën naa jur mais sama idol la ndax mi ngi jàppale borom kërëm fonk borom kërëm téye borom kërëm yërëm askan wi comme ni borom kërëm yërëm askan wi bu bërëkam borom kërëm jaaré ci bi bor mu jaar ci bor bi ci dess uniquement rek pour borom kërëm Sénégal jëm ci kanam di andak nak. sama responsable Moustapha Cissé Lo euh, comme politique nga may laaj ma di ci yëngu damay wax ci politique parce que man politicien la waaw man loolu dina ma neex. yaa ma ko laaj ma di ci wax. man lu ma def lu nekk tàbbal ci politique ndax président de la république moo ma ñor ndax ki ma booleeg moom Moustapha Cissé Lo président si parlement CDAO du premier vice président vice président à l' assemblée nationale. boole maag sama doom galo ba ñu ànd di nekk ci dëkk bi di liggéey liggéey bu rafet nag liggéey bu neex daam mi xam na ci dara ndax galo galo ma bu fi nekkoon tey jii place bi ma toog ngeen tey jii ñëw fekk si ma pour ma wax ci daam moom moom dana wax ci daam mbàkke géppay wax sax ci daam ndax daam daamu mbàkke la daam ñëpp ko bëgg daam ñëpp ko bëgg kon daam dañ koy ñaanal ci doole yàlla ci kàttanam yàlla ak yonent bi ak Seexul Xaadim ak sunu ñaari waajur tamit darajey borom kër yàlla na ko liggéeyu ndeyam wallu ak barke baam te mën na ko wallu nag parce que yaayam ku sonn la ci doom ku bëgg doom ku bëgg daam ku gémewul daam xaritu daam mooy xaritam soppe daam mooy soppeem noonu daam mooy noonam bàyyi mit gërëm ko nag ba sàngoo suuf ay mbokkam gërëm ko ay mbokkam dañu toog fii di gërëm daam di gërëm daam ba may jooy te loolu am solo ay soxnaam it gënum gërëm it ay soxnaam ndax it daam ay soxna yu baax la am ay soxna yu baax yu ko muñal ñu jàpp jàpp leen ñu jàpp ko mu ci première femme mu ci deuxième femme mu ci biir famille même ay co-épouse papa yaayam sax daam am naa ak ñoom relation fi mu nekk daama leen gën a seen bët kon daal daam il est sans défaut te di ñaan rek yàlla na ko yàlla jàpp aar bii na nga xam ne mooy bëgg-bëggam te moom la am. danoo ñaan yàlla ñun ñépp ñu takku jàppale ko ci ndax ñu am oo koo xam ne xel ni dina mën a génn fii ci biir Mbàkke Bawol ndax aar bi la gëm aar bi la bëgg te mi ngi ci aar bi te aar bi neex na ko te mi ngi ci way lu neex a neex a neex lu am solo waaw te woy dafa jafe woy dafa am dégg woy dafa am laaj woy dafa am tekk te woy war nga foo woyee fu nekk ku ko dégg xam ne yow mi woykat nga mooy woy yoo xam ni bu ko askan wi déggee man cee jaruñu waye walu boy mbalax di tanax tanax rek mu ko nam dam don dow na loolu daam buur géwal la wul piir la géwal bu fonk bopam daw ken musko gis mu froissé toujours bo gisee dam nga mi ngi ak ay milliards xam sa sama papa daana wax neen am junni nuru junne ko gën ndax bo amé junni te nuru wo junni yaa ngi ko ñàkk mais dam foko fekk fim nek da fay nuru milliardaire te lol moy sagu aduna kon dam dañ lay defal mention spéciale sa anniversaire bi yalla na dak ci anniversaire yi ma sa jaar ci barke sayyidina muhammad ta sa ar bi yalla na nga dund ba melni ni nur ndax yéene nan lako te mérité nga lu mel non ndax bëgg nga ar bi te ar bi rek am solo tay bala may teñ nak di len gërëm yeen tam di len sant yeen ñi ñëw fii tey fekk ci ma pour ma jaati len nek ma ci jaaxal da ngeen ma fekkul ma préparer dama bëggon préparer defaru. yeke nga nu na ci prepare, dama bëggon préparer defaru ba nu xam ne ji sama doom moo ñëw nag moo aye nag le 8 mars journée de la femme daam sax jour bi journée bi nga ko def sax dafay journée boo xam ne journée bu am solo la ndax le 8 mars journée jigéen ñi la nga taamu ci lii soirée bi def ko ci soirée pour sargal jigéen ñi encore daam duñ la ci gën a félicité ci 8 mars boobu nga taamu di ci gën a euh, dina ci gën a ñaanal kontaan ci loolu nag di profité ci occasion di ci gërëmaale suñu ministre de la femme mu Ndeye Saly Dieng Ndeye Saly Diop ministre de la femme bu bu fi mas a jaar yow ma ne bii kenn gënu ko ci jàppale ne jigéen ñi mu ngi seet jigéen ñi mu ngi toppatoo jigéen ñi fonk jigéen ñi téye jigéen ñi di nemmeeku jigéen te ñun loolu lan soxla ndax danoo moon ko mel noonu président Macky Sall juumul bi mu ñu indilee ko mel ni Ndeye Saly Diop Dieng. kon nag te it journée bi dafa ñëw le 8 mars di journée di journée jigéen ñi di suñu ministre ñun ñu ngi ko ci sargal laale di ko yëgalaale soirée Dàmbaay bi muy def ndax it moom askan wi doo nga ko ñor te journée bi ja daam tàmm ci soirée bi journée jigéen ñi la kon ñu ngi koy wax jigéen ñëpp dama bëgg jigéen ñëpp génn le 8 mars ci guddi ñun ñëpp ñu àndandoo solu ba jekk defaru ba jekk takk lu rafet. sol lu rafet xeeñ lu neex àndandoo dem théâtre de verdure sargali Dame Mbaye mi nga xam ne moo nar a sargal jigéen ñi le 8 mars ci guddi àndandoo moom ba yëf fi jeex kon nag yéen dama leen di gërëm bu baax di leen sant ndax li ngeen dafa am solo dafa neex ndax kii ku accompagner ñun ko accompagner te suuf bu sutaatee dañ koo jal kon dañ nooy war a jal Dame Mbaye ñu ngi ciy woo ñëpp nag di ci woo it le de la ville moom it na ñëw jàpp ci parce que amuñu lu dul Mbàkke te ñu ñor autorité yi ci Mbàkke yëpp nañ ñëw jàpp ci responsable yi ci Mbàkke nañ ñëw jàpp ci képp koo xam ne am nga ndomba tànk ak ku amul ndomba tànk di politique te jàppale président de la République dana bëgg ñun ñëpp ñëw jàpp ndax ñun ki président Macky Sall dongo ñu ñor te lii ci boppam ci la bokk ndax culture di ci woo ministre de la culture ak ñëpp ñu jàppale Dame Mbaye ndax Dame Mbaye xale bu baax la te ku ko jàppale dina yàlla mën na ko jàpp àggale fu mu jëm te kon dañ koy ñaanal bu baax di profité ci occasion bi da ngeen fi ñew fekk ñu sama borom kër ndax dañ ko fekk mu nekk à l'étranger di sante bu baax a baax a baax di ko delloo njukkal di ko gërëm di ko sant ndax moom nu ma mel mooma man meluma nenn aw ma dara taxaw ma dara taalibe rek laa buy liggéeyal sëriñam ndax mooy sama sëriñ mooy sama sang ku am sa sang na nga ko jaamu lu ko may nga rawle ma nga ca Espagne maa ngi koy gërëm di ko béral nuyoo ak famille

macha allah yéen a déggandoo lu ñu naan euh, werante xaan tekki tubay dégg ngeen li nga xam ne moom la bàjjan dàmbaay xaal wax fi lii kenn di ko werante ndax nee nañ euh, ñaanu li nga xam ne mooy bàjjan day daal te bàjjanam ñaana na ko te nekkul loo xam ne dañ ko foree si mbedd bi dañoo ñëw si ki nga xam ne tamit muy bàjjan te nee nañ bàjjan mooy bàyyi dàmbaay euh, xaal tey ba mu doon yuuxul si sa bàjjan bi tey ñu daal koy tëjee ana lan nga may wax ajaratu mi nga may woyloo ajaratu de tëkkati la ni wee yaayam ngoñ mi tëkkatuli téere laalatuli ndomba korlu baat di jar ndoom ngoñay samaam ngoñ daawul wayaan takku wayaan mu dab nangoo yaayi caacoo laay way yaayi alwa yaayu anta aale ajaratu ne na njaay mi may wayal man de bëgg naa yaayu pap mu ndaw yaayu maam seex yaayu njaga bu ma neexee ma ne yaayu jaboot laa lay woowe bàjjanu dàmbaay xala alaaji sidi maxtaar njaay mooy sa man de bëgg naa la so deg cawaar moo dun yoro faali alkayre bandaar njaay su ma yàlla bëgg na ma bàyyeeg yow man de yaa ma jëkka tëral ci ay way ndeysaan bi ma àndeek sama baay boobe yàlla ko yàlla xare àjjana mu indi ma fii ci yow boole nga maag ay niti nit ñu di ma tëral bu ma jógee ci yow laa jëm ajaratu ne na njaay yaa tax man ndeysaan joyu ma alaaji mbedd mbaayi sama baay ba ajaratu nena njaay mi may wayal boo ma koy woyloo damay sawar mbàkke bawal ak li ko wër li ko fii ba jurbal central xam nañu ajara ajaratu nena njaay ci social lay dox boo jàqee ba ñëw ci moom bu amee di bu amul di la dëfal mu am bokk na koog réew mi ay waayi ndeysaan jigenu musa fasi ya yayu Galaba yayu caaco mbay mi may wayal sode cawaar modun fale al alkayre bandar njaay sode degen sa maam danu ko jam kolok talaatay inder yaay géwul bu gën géer man de li ma leer ba leer mooy da ngay fan ndax Bawal gi da nga yor sa fami bu jaxasoo yaa jubale jëkkër ak jabar bu ñu xuloo yaa leen defare baay ak doom bu ñu réeroo yaa jubale lii leer na Mbàkke Bawal waa El Vision Médias ma kii may wayal su koy way waat naa sama baat bi dafay gën a neexoo ndeysaan añaratu ndata njaay nga bokkal yaay yaayu awa nga bakkal yaaye man de bëgg naa la yaayu caacoo mbay yaayu ummi jee yaayu degen man de bëgg day jal ay bi màkka di ko jox ay magam ñuy aji bayti laayal xanaa xamuloo ni moom mudu rasulilaay ku fa dem ñu jéggal la boo ñibbisee ñu naan la ajaratu mbaa ji ngay ku ñu baal waxu malaak ngay joxe ay bee màkka Eh, nit ki boo fexee ba mu yer kaabatu rasulilaay dañuy far say bàkkaar wooy bàjjanooy yaay baaye yow laay xoole alaaji mbedd mbaay eh, caacoo mbay sama rakk jaa ngi nii alaaji sëriñ mbay mooy sa baay na ma ko waxee ca way wa man bëgg naa la alaaji malik mbay mooy sama maame ndeysaan madak bintak njak ak mbari kambay ku ci mer yonib jam etal malamin fal ak malamin jaaji dama mi ci ngay may baram ke sam rek ji lay way bu ma ñewé dina man waye dina ma taral ay ndaysan adara tu nana njaay sa yaay man de bëgg na la seri umi jeng naaru papa bada je man de bëgg na la Yai bayu mam jara mi ñu dippee borom poroxaan man de bëgg naa la eh waaw waaw caacoo mbay sama rakk ji pa mu ndaw nga bokkal njaga ñanga bokkal yaay Naru yaay ndate degen ndeysaan bayu. ndate mu ndaw mi mu Sunyu suñu bi man de bëgg lai la la sama bàjjan bi bu ma koy woy sama xel mi dafay gën a ubbeekoo yaa ma jàkka takkal ay junni fii nga toog jox ma ko terale ma ko yaa ma jàkka xamal ndeysaan xaalis bu baree baree ci aar ay junni rek lañ ma daan may su ma jàppee xaalis bu takkoo takku yow yaa ma ko jëkka defal ndeysaan kuy fàtte démb baaxoo ba nga may woo fii naan ma ay waay gëmal sa bopp fu la wowul bul dem bul la yëgalul bul dem bëggal sa bopp silwiiseel booba mbàkke bawal gëmuñu dàmbaay xalla ba ma fa jógee dox ca loola dañu ma respecté dañu ma jox sama cër ba loolu laa yóbbu ndakaaru réseau de Kaolack réseau de njaareem fu ma jëm ñu naan dàmbaay xalale Baay Faal de la musique sénégalaise et mondiale bu ma yàlla bëggee na ma bàyyeeg yow way wi ma wayal sama xol bi laa ko tibbee dem bàjjanay baay di nga gudd fan ndax aw askan boo ci nekkee di def lu baax di wax lu baax dangay gudd fan loolu du samay wax waxi suñu boroom la moo ni ak mbokk maa ko jàppal sama bopp boo jokkee ma jokku la jokku saw fan boo ko dogee ma dog la saw fan kon yow yaa ngi jokk mbokk gi ci réew mi man de bëgg naa laay sa dek cawaar ma dun yoro faali alkere bandaar njaayo waaw man de bëgg naa la waaw kii bu ma du ma doyal ci woy waaye dama koy tënk foofu rek njaay ndax yow li ma wax dëgg la barki Cheikh Fall yow yaa ma yaa ma Fal. macha allah comme ni ma koy waxee rek euh, nee naa la yaram daw na rek euh, yax des macha allah mu nekk jigéen ju am jom mu nekk jigéen ji nga xam ne macha allah ndax bu nekk woon ku baax tey euh, dambay xaalu du toog fii di wax di ko ba fan di ba Dakar di ko ba fépp ba tey waa Elvision tey nee naa ñun ay média kese lañu ñu daal di ñëw di gëstu li nga xam ne tamit moom la bàjjanam di def te bu ñëwee tam fii lañ ko fekk dama koy daal di jox micro bi rek mu daal di tàggatoo am di jàmm yi nga xam ne ñoo nekk si ginnaawam mu daal di tàggatoo xaritam yi nga xam ne ñoo nekk moom ndax xam naa waa Rési ngi may def message ndax xam naa léegi heure jot waaw maa ngi taguto bugat, bu gàtt xam naa ni guddi na jaar bi gën fi jaar vraiment jaar bu rafet la maa ngi ciy ngeen ma mais quand même neex na maa di gërëm sama personnel bi yi nga xam ne ñoo nekk ci campement bi ak ñi nekk Diourbel ak ñi nekk fépp ma commençant ci bokar mi nga xam ne moo doon sama employé maam Cheikh sama doom yaayam bokk ndey Baye Njaga Ñang déggeen paamu ndaw di gërëm sama xarit yépp di leen ñaanal madame Mbacke moom ni ngi ko invité ci soirée bi mu waajal ko ak Aïda gay yaayu Dambaay Jaarut Sarr Diouf nan ko waajal ndeykat ñoom nday ja nday Tabara Daba Diouf sama doom Jal euh, euh, Thiam Aïssa sek nday Fat sar Mariam Mariam Sall nday Wade ñoom ñep dal dama bëgg dal bu ma limee danaa juum ndax ku lim juum ñoom xadi jong ñoom ñëpp daal dama bëgg ñu génn ñoom ndey baabu ñëpp daal laa bëgg daal toute la population de Mbacké daal dama bëgg bi yoon nan génn sargal daa mbaay ndax bisu jigéen ñi le 8 mars waa kër Cissolo yi nañ génn ñoom mamket ñoom ñëpp madame Mbacké SEDAF madame Mbacké district sanitaire ñoom ñëpp ñoom Charlotte madame Thiam dama bëgg daal Mbacké gépp nañ génn mënuma lim ndax bu ma limee dinaa juum ndax man ñëpp samay xarit lañu man Mbacké bu yóbboo ma ne aw fi noonu même jigéenu Abdou Mbacke Ndaw dama bëgg ñëpp ñu génn ñu sargal Baye Dambaay le 8 mars ca théâtre de verdure bu Mbacke di gërëm ñëpp di woo ñoom faatim Ndiogu Ndey Ngoom ñoom sargal si la ndax bis ba nga ko def dafa neex bisu jigéen ñi la jigéen ñee ko moom du sa bis sunu bis la kon sunu bis dañ koy waajal jërë ngeen jëf macha allah yi ne ko déggandoo dégg ngeen li bàjjan bi wax kon yàlla na yàlla may wér ak wérle ba nga am tànk yi nga xam ne moom ngay dox ñoo foofu macha allah nag may sant waa Mbacke ndax depuis suba ba tey euh, macha allah berndeel bi doy na lekk bi doy na comme ni ñu koy waxee chaque jour damay daal di tàggatoo rek ba beneen yoon ba incha